amul tey tey itam loolu amul ëllëg fi mu nekk nii ginnaaw bi ma defee ñaari mandat ba nopp damay génn able ak lu man di doon man dootuma bokk li nga xamante ne bi moo jëm ci wàllu institution yi nag sama mission mooy fexe saytu li nga xamante ne bi rek mooy institution yi ñu gën koo respecté gën ko war mal fi ci réewum Sénégal Macky Sall leneen lu mu wax ci discours am bi mooy ñi nga xamante ne bi ñi ngi jóg rek di yàq réew mi ñooñu itam yoon dina def seen liggéey ci ñoom Macky Sall discours ba nga xamante ni ginnaaw ba mu ko defee te ñëpp doon ci xaar mu àddu ci troisième mandat bi ba mu ci waxee ba pare ñu përi génn nañ di ko félicité kiñ ci njëkk a gis moo di Youssou Ndour Youssou maa jigéen génn na fental away Macky Sall ne ko yaa waxoon def nga ko kon nag gàcce ngaalaama am na ñu Sénégal ay routes am nañu ay pont am nañu ay stade am nañu ay infrastructure yoo xamante ne bi yu mucc ci ayib la kon nag li ñu desaloon rek mooy yëkkati suñu démocratie te tey ji la yëkkati nga ko ba àdduna yëpp di ko teg bët Youssou Ndour a ngay gërëm Macky Sall keneen ku gërëm Macky Sall moo di président wu 2STV di El Hadj Ndiaye El itam nee na Macky Sall moom day tey ji mën nañ ko bind ci histoire Sénégal El Hadji Ndiaye nee na Macky Sall am na way wu rëy way wu dul fay mukk ba abadan way woo xamante ni bi ay génération ki génération dinañu ñëwaat ku ci nekk ñu lay nettali jaloorey président Macky Sall Macky Sall ay naataangam yoo xamante ne bi ñoom itam ñi ngi ci tweet bi rek di poster ku ci mel ni président Niger ak yeneen président yoo xamante ne bi ku ci nekk rek bind nga ci sa tweet di gërëm ak sargal ki nga xamante ne bi mooy président Macky Sall président Macky Sall discours ba nga xamante ni bi def na ko ba mu ko defee ba noppi siège APR ba daanaka waa APR yëpp la ñu fees dell waaye ñenn ñi bu fekkee ne ña ngay sargal président Macky Sall di ko kañ ak di ko bravo ñenn ñaa ngay jooyoo am na ci ministre boo xamante ne bi jooy yu metti la fa jooy naan ko Macky Sall dëgg-dëgg war nga ñu waxoo ñu woon li Macky Sall da war a jiite réew mi ba ci kanam ñun doyale ci yow ay nit yoo xamante ne bi nit yu bari la ñu gis ñuy jooy démb donte nag ñenn ñaa ngi koy bravo ak di ko félicité keneen ku jooy bokk na ci Amet Thiou Amet Thiou fecckat bi nu fi miinoon ci Ramadan te mu génn ci nekk président Macky Sall moom itam démb gis nañu ko mu defi discours ba noppi daal di dem ci fa nga xamante ni bi moo di siège ab APR jàkkaarloo ki ñoñam di def ay teede ak ay témoignage ci kii di président Macky Sall naan ko yaay gor yaa bëgg jàmm réew mi dëgg dëgg gor nga te itam te itam doo nitu fitna keneen ku sargal président Macky Sall moo di Moussa Sow njiital COJER Moussa Sow mi nga xamante ni bi moo jiite ndawi APR yi moom day génn na wax nee na kii di président Macky Sall ak décision bu mu mën di jël ñun daal ànd nañoo ak moom li wéttewoor mooy duñu ko bàyyi tey tey itam duñu ko bàyyi ëllëg nag bu nee wii ñu ne wii bu nee non ñu ne non dañu ko bëgg a xamal ñun ndawi Sénégal ñun ndawi APR li wétéwóor mooy moom la ñu àndal tey tey itam moom la ñu àndal ëllëg en tout cas ay jëfam doy nañu te tey ji itam réew mi nu ñu koy bàkkoo di ko sagoo ak di ko kañoo ñun ndawi APR noonu la ñu koy kañoo tey ji la ñu gën a fier ci sunu président waaye itam gën a fier ci sunu leaderu pat ka xam le moo di Moussa Sow njiital COJER wax ci keneen ku génn ci ci discours Macky Sall bi moo di Omaro Omaro ginnaaw ba Macky Sall defee noppi daal di ne na Wally Ballago Seck fi mu nekk nii dër comme Macky Sall wax ne ne du bokk yow itam Wally Ballago Seck jéem a la bokk jéem a la samp saw ndënd 2024 ngir mën a jiite réewum Sénégal président jàmmi réew mi Wally Ballago Seck Omaro ma ngi koy ñaax rek ak di ko soññ gëmmal dër maanaam loo am jël sampal sam dënd élection yi vingt 2024 Omaro vidéo ba nga xamante ni bii def na ko fi mu nekk nii moom la ñuy partagé fépp ci réseau social wax ci keneen koo xamante ni bii itam wax na ci discours Macky Sall moo di Dias day félicité na Macky Sall koy wax naan ko Macky Sall gàcce nga la am dëgg-dëgg siggil nga Sénégal te itam saxal nga démocratie en tout cas man day bett nga ma te itam lii la ñu doon xaar ci yow Barthélémy Dias moom itam maa ngay félicité Macky Sall keneen koo xamante ni bi itam génn na defi révélation moo di Guy Marius Sagna Guy Marius nee na man daal discours bi daal doyuma waaye nag du ci gërëm Macky Sall ñi ma ciy gërëm mooy ñi nga xamante ni bi mooy ñi génnoon ci mbedd mi di xeex ñi nga xamante ni bi may ñu ko fu mu yàq ak nàkkaam ñi nga xamante ni bi dëgg-dëgg ñoo ko taxaw Macky doo bokk tey doo bëkk ëllëg ñi nga xamante ne bi ñoo ko sañ a xal sës ko ci miir bi ba mu jaral ko dem man ñooñu laay félicité kii ñu ko xamal moo di Guy mari Sagna tey nag nee na dama bëgg ngeen def attention bu baax a baax ndax kii di Macky Sall tàmmal nañu lu mu wax du ko def te itam lim nar du ko wax kon nag bu génnee ne du def troisième mandat moomu le mbir war nañ cee tey bu baax a baax xoolaat fan la ñuy teg suñum tànk man daal wóoluwuma Macky Sall ki ko wax moo di Guy Marius Sagna leen wax leneen lu soxal Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye Savon itam muy woy di tukkal àdduna di woy di def ay vidéo yoo xamante ni bi ñëpp ci reetaan waaye itam di ci jaare la am njaayam moom maam njaay savon day ka ko doon recadré moo di mami Cobra yam mbokkam tiktokeuse mami Cobra na ko maam njaay savon revient sur terre ginnaaw problème boo xamante ni bi am na kook benn employé ñu koy woowee mama vulgaire moom mama vulgaire moom nga xamante ni bi daanaka àndam ak maam njaay savon tas na ba mu tase ba tey na maam njaay savon defoon ci wulimata rek lay def ci di defi live di ak di ko ko yekk musiba ak mbelengaan lii bi moo di Mame Ndiaye Savon naan ko Mame Ndiaye Savon revient sur terre am na ci loo xamante ni bi dangaa yaakaar na yow la waaye du yow sa liggéeyub nday la sa yaay ju baax jooju moo la liggéeyal ba nga egsi fii nga egsi kon nag dama bëgg nga xam ne mbir mi du yow te itam nga defaraat sa toogaay bu baax a baax xam ne sénégalais jox nañ la bopp gën a modeste gën a humble waaye gën a am yërmande ci say employé Mamy Cobra ma ngay jox ay conseil kii di Ibrahima Ndiaye Savon wax ci duudoog ngóor mi nga xamante ni ñoom ñaar ginnaaw seen i problème yi nga xamante ni bi amoon nañu ko boobaak tey kenn déggaatu leen mbaroot yi mu mel ni boobaak léegi mbaroot yi daf leen wan ginnaaw duudoog ngóor nag génn nañu fi mu nekk nii di def ab annonce bu doy waar nee nañu daal fi mu nekk nii pare nañ mbaroot dañoo sos seen yëfi bopp fi mu nekk nii ñu ngi ci benn label boo xam ne seen label bopp la ñoo ko moomal seen bopp tuddee ko GPS production ay ndaw lañu te itam dañoo bëgg a innover indi tous bu doy waar boo xamante ne bi tous bu ñu ràññeewul loon ci cinéma Sénégal Dudo Ngor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 80 wala 78 164 63 92 solar 96 transit lépp lu ngeen soxla ci matériel électronique et divers import export logistique groupage kër gii di solar 96 transit mi ngi taxaw di leen xaar équipe bu dynamique am pastif lool ci liggéey bi ñuy def du ñu la yàggal ci dara solar 96 transit import export ñoo ci mën fu wuti xam-xam waay yàgg ci dara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 gaay na gaaw bu leen ko kenn nettali billet dafay jeex. Firenze Italiano, les Golden Boys de la musique sénégalaise Wally Balago Seck, un concert live le 29 juillet 2023.